lu TV seen YouTube sénégalaise da nga bëgg publicité jokkowal ak ñun lu TV xibaar yi wér te wóor. waaw salaamaaleykum lu xew TV jaar na leen. waa maanaam bruit boobu ñuy wax cam nekk HLM euh, HLM defe naa xuma parcelle ñi naan Drango la ñi naan jaan ñii naan yeew la man de sama xalaat bu gàtt li ma ko teg euh, maanaam reeni garab yi bombante dañuy def noonu reeni garab yi bombat def noonu maanaam garab bu demee ba reen bi gudd mu war a moroomu garabam parfois buy ni ngelaw li am mën na ni bombante wala ay garab sax bu nuy bu ñuy def noonu maanaam luy bombante la daal pour te dire luy bombante la luy laalante la waaw mën na nekk garab guy bombante ka mën nekk bant boo xam ne nii sax maanaam dañ koy teg foo xam ne nii euh, fa muy nekk day coincé wu am loo xam ne day mel luy déplacé wu nag di ko frotté waale waaye daal xam naa daal. luy luy luy luy bombante la ndax bruit bi dañ koo tegoon euh, ne ku ko mën a déglu nga wax lan mooy sa waaye buñ ko xoolee bu baax man sama gis-gis bu gàtt mooy reeni garab yuy bombante lay doon ndax bu fekkee reen ba dafa yoloma ca suuf am beneen reen bu ko war bu garab gi di ngelaw di def bruit day faral di def noonu waaye teguma ko luy dund de déedéet teguma ko luy dund te karamuy sotti ci du loolu luy dund